في سجون الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبقنا ناصر ملاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب رضا وتيسير وتغلقنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها ولي ونصير أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا مولانا ونعم المولى ونعم النصير subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun salaamun alal mursaliin walhamdulillah ngi nuyu autorités yi nga xamante ni ñu ngi fi yëpp teew di ko njëkkee ci religieuse muy sëriñ bi di ci teg autorité administrative yi nga xamante ne moom mooy waa mairie Ndiarème Limamoulaye laay loo xam ne kenn ci conseiller bi léegi la fi jël kàddu di ci teg autorité militaire yi nga xamante ne aussi ñoom teew représenté brigade nationale des sapeurs-pompiers bi de soutien nga xam ne événement bi bu duñ ko réussir ñoom ñoo tax ñuy réussir événement bi ñu aussi invité euh, club de randonnée pédestre yi nga xam nañ ci marche leen bi dafa xat dañuy rek après de remerciement kenn ku si nekk fekk la fi na fekkoon joxoon na enveloppe de donc damay wax ne objectif mémorial bi laay fàttali rek ndax ay jeunes yi nga xamante ne nii ay hommes de la des hommes en uniforme bàyyeekoo bi nekkoon ak feu commandant Cheikh Amadou Tidiane Tall ci service yi ñu doon nekk am na ñoo xam ne sax bokkul woon ak moom service waaye ñi gis jariñ bi mu leen doon jariñ ci seen yëngu-yëngu ci seen liggéey boobu noonu bu te yàlla bi yàlla defee li gën jëlee ko fi ñoom ñu ne ñoom mënuñ fàtte boobu il faut que ñu fàttali ko moo tax ñu créé la ko mémorial bii nii quatre première édition yi rek comme ni ma ko waxee sànq ci randonnée bi cross de masse la def waaw bu ñu gisee ne ba nit ñi ñi nga gën a bëri te cross bi da doon indi ay jafe-jafe ci organisation bi ci lan initié depuis cinquième édition bi ba tey di neuvième édition bi randonnée pédestre ndax am na médecin comme ñi nekk na sport bu complet nas naa jox kaddu gi sambule waaye gannaaw dañ koy goxonte rek ma jël alhamdulilahi rabbil alamin seen programme bi ngeen tëral boobu ba léegi dañuy wax lépp lu lu lu lu yàgg dëgg seen reconnaissance ci ex commandant Cheikh

guddal waaye lu mu lu mu lu ne alhamdulilahi rabbil alamin daal liñ fi bay yàlla na ko yàlla barke ñu nekk ci gannaawam di ko ñaanal yàlla na ñu fi yàlla yàggal yàggal nu ci kanam sëriñ bi yàggal nu ci gannaaw mag ñu baax ñii yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla faj xaajooy képp ku fi taxaw dëgg-dëgg baax baax na waaye am mbokk yu baax it baax na kon ne ñun ñëpp nan laxasaayu muy suñ référence waaye ñun ñëpp it laxasaayu bàyyi gën bàyyi xel ku fi jógee sa gannaaw kon na rafetal ñun ñëpp alhamdulilah rabbil alamin sax bu ngeen soxlaa ni ngeen nekk si saa yu ñu soxlaa dara fii si kër yi woote rek bala ñu ay minute ngeen dikk dëgg yàlla sant na leen gërëm nañ di gërëm tamit seen àndandoo yi ngeen àndoon dëgg yàlla colonel ñu ngi leen wax jërë ngeen topp ñoom ñi ñoom topp si ñu nekk seen i mag gis nañ ànd bi nga xam ne moom lañ ànd weeru jot bu demee dañuy dem ba kër Léval di ko yenn ñu ko seetlu kon nag loolu bu ñu koy def bi moo moo moo rafet maire bi ñoo si jàpp tey Fatou kontaan nañ si yow kontaan nañ si yow te li ñuy wax mu wér la bàyyi taal ngi nii toog ak i jigéenam maay seen mag kontaan nañ si yow. yal na yàlla barkeel si yal na yàlla sàmm la yal na yàlla wattu nga bëgg a yàgg xam yal na ko yàlla def ñu ngi lay ñaanal yàlla yàgg ñi nga xam ne jëlee nga leen gam du tey de at mu jot ngeen def benn gaal ñëw fii ànd ak ñoom ñuy dem di dikk dem di dikk parce que yàlla loolu kontaan nañ jërëjëf yoon dafa ci biir may sant dem sa yu mag yi nga xam ne mënoon nañ see dugg ñu xale yu góor imaam ma doon gisee dugg mënoon nga ko xam day faatu bu ne maa ngi dem kër bàyyi ñi nga ne ko doo ko def waaw boobaag léegi day faatu kenn xam ne woo ko moom malade saa yoo dimanche samedi dimanche bu jàngiwul bu amee fête bu liggéeyul mën nga fële kër bàyyi te ma mënoon ngeen see dugg te loolu nag seen dugg leen ci suñuy doom dugg leen bu ñu amee vacance ñu ngi ci kër Baye Dame moom mii ndey di ci wax yéen ñi ma nga xam ne bokk ndey mu ngeen ci wax kon nag wax dëgg yàlla alhamdulilah ñu ngi leen di sant di leen leen ñaanal jërëjëf ñu ba leen waxal ne ko mu na leen gërëm na leen ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla jàpp leen الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته certes, le papa est plus expérimenté que la fille, mais la fille communique mieux que le papa. C'est ça qui s'est passé. Vous allez me pardonner. ah euh, ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di njëkk nuyu kilifay quartier bi mooy El Hadj Abdou Maram Koulou euh, bu ñu ko nous, nag nuyoo na toute la hiérarchie préfet du département nuyu leen le euh, ministre de l' ah, nuyu leen le premier ministre de la République ak ñëpp ñoo xam ne ñoom ñëw ànd nekk ak ñoom ñu ngi nuyu tim waa quartier bi àndandoo yi suñu mag Alaaji Abdou Maram ñaan yàlla yàlla yàlla yàggal leen fi monsieur monsieur les colonels ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ñaan yàlla ñaan yàlla gën leen yokk si ay daraja gën la dëgëral gën leen a kàttanal may leen maqaam yi gën a rëy si maqaam yi fii si àddina ak fële si àllaaxira te yéex ngi leen ni sargal la ndax dëgg lii bu amee taxaw dëgër da ngeen see jàpp kon ñu ngi sant yàlla si àndoo bu mu nga xam ne mu ngeen àndoon nag suñ suñ suñ bopp ndax ñun ku xam Cheikh Ahmad Tidiane Tall rek xam nga ñu waaw euh, ñu ngi nuyu itam euh, suñu jarbaat ak foyer de jënte géej bi nga xam ne ñun ñii bokkoon na si ñi ko sosoon te yàlla dimbali nañu sax ñun ñii jiite woon nañ ko kon tey suñu ko waxee dana xam ne moom sama sët la Lamine moo tax kon moroom mi Lamine Ndiaye yi ak Cheikh Tall yi ak ñii toog fii ñoom Gaye Mangane ñoom Moussa ñoom Baba Diankha ñoom Baba Diokundul ak ñu nekk bitim réew Issa Bati Bey mi nekk États-Unis ak Isama Dikouboul ma nekk euh, fële ak Baye Gaaj fanweeri nit la ñun ñëpp ay morom la li may wax nag si fanweeri nit yooyu kenn ku nekk si ñun amoon na yàqin na Cheikh Tall ba amoon benn doomu góor mën na tuddee ndax Cheikh Ahmad Tidiane Tall xaritu ñëpp la woon kenn ku nekk man mën naa wax ne Cheikh bu amoon doomu góor mën na ko tuddee Issa Koundoul mi ko tuddee doom bu ko doxee ne Cheikh Tall mën na ko tuddee kay mu gaan mi ñëpp la yemale woon ñëpp yaatu woon la ci suñ biir ku ñu yaataloon ku yàlla may daraja la waaye ku ànd nañu la si Cheikh ba nga bëgg kenn kenn suñu ko war a mën a liggéeyee Dakar fi côté sapeur pompier yi te lekk ma ngi fa te naan ma euh, benn jafe-jafe pour àgg lépp la lu mu bëri bari bëri ay ay ay ay ay ay responsabilité bu di koy Guédiawaye tooy ñun xam lu ñu neex la sol lay ànd waaw am na lu bëri lu mu defoon fi ñun am na ñaari carnet yoo xam ne ku bëggoon visiter les écritures de Cheikh Ahmed Tidiane Tall bu dikkee fekk ka fa nga xam ne c'était grand organisateur ñun ñëpp kenn ku nekk bind na sa tur kenn ku nekk euh, li nga daal xewle sa doom bu juddoo wala lépp bind na moom moo si taxawoon moom moo bëggoon ñu ñi ànd guddeeg bëccëg di di di di suñ lépp nekk lu nit am suñ biir rek nekk lépp ñëpp Cheikh Amady Yaakaar loolu la nekkee woon waaw du ma guddul ndax dañ dañuy wax na doon guddul mais ma fàttali tamit Cheikh nag koo xam ne loolu dafa bëggoon ay ay ay ay détails yu précis waaw maa ngi doon waxtaan léegi Ndeye Fatou nag waa Cheikh nan la tudd kon Cheikh la bi ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane Tall ma ko waaw Cheikh Ahmed Tidiane Tall bien sûr noonu la tudd woon kon dama bëgg t-shirt yi euh, laa je m'adresse au foyer de jënd gi ah wooy waaw dama bëgg t-shirt yi bu ñu koy bind te ñu bind complètement son nom parce que nag turam nag dafa am lu muy signifié Cheikh mooy ki mag kii Amadou moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la Tidiane ñun ñëpp mii mu xam moom euh, Cheikh euh, Ahmed Tidiane bu mag la kon loolu nañ ko bind si détaillé ba tax man je suis né le 30 décembre 1959 à 23 h 59 par mission taw tu es en sorte mu non non non je suis ne comprends pas pour bëggoon détaillé mais da ngeen xam ne ñi koy ñaanal ñi ñaanal sun jigéen sun soxna sun lepp ñi ngi ñaanal jaboot gi ah ñi ngi ñaan yàlla jaboot gi yàlla barkeel ga ah, waaw dëgg dëgg yàlla sëriñ bi dafa gawa a dem waaye bëggoon naa ko waaye comme ça mag Mor mi fi naa ko bu paree na ñaanal suñ njaboot gi ki doon def conférence bi ak ki toogoon si pegg bi ak euh, ñëm ñëpp suñ njaboot la waaw kon nag proto éhi non ñun ko bëgg ah rabbana hablana min azwajina zurriyata qurrata waj'alna lil muttaqina imama sëñ boo pare nga ñaanal njaboot gi yàlla jëmale leen kanam ah li nga xam ne ñun mënul ko woon yàlla def ko njaboot gi ah, suñ Sénégal gi yàlla def ko muy Sénégal goo xam ne tey émergé di jëm sa kanam waaw loolu mën na ko lii ñu defal seetaan lu am solo la waaw ah, lu am solo la ndax tim euh, ak ñaan la te mérite na ko ñun ñu xëy kenn ku nekk bay si yitte ne maa ngi dee wuti wér yaram ngir Cheikh Ahmed Tidiane Tall loolu lu rëy ko yàlla fay la subhanahu wa taala yàlla yàlla fay ko loolu waaw bu fekkoon bi mu dund ak ñun c'est leneen la nekkoon ñu def leneen loo xam ne ak mooy yàlla la kon day doy waar mais lii ñuy def kenn ku nekk na am yaqin na ak jaamu yàlla ah te kon yàlla yàlla fay ka ak bu yàlla fañu ñu ci xeetu jaamu yàlla buubu te mooy ànd nekkoo benn bëggante soppante joxante ay ay ndox joxante ay tàngal di dox kenn taxul lu may gannaaw yàlla subhanahu wa taala sun sun sun sun sunu àndandoo woon mooy commandant Cheikh Amadou Tidiane Tall waaw eh, waaw waaw moom kay moom kay tuuri dama gudd dama daa amat dama tuur dama gudd waaw kon daal ñi ngi mali foofu waaw waaw waaw waaw waaw léegi euh, mu taaj waaw kay dama bëgg joxe ay ay ay statistique mon colonel euh, tey dox bi dox pas Devant une application on day compte les pas avec ça on a fait 5,42 km avec ça on a fait 1h14 euh, minutes de marche et puis on a fait 113 pas par minute à ce rythme là on a kenn brûlé 240 calories Comme Loulou à sant à la en ah, lii fekkoon ne répété de façon périodique ah lii docteur doon wax léegi si affaire diabète mën naa am tuuti ci dara kon yàlla yàlla yërëm Cheikh Amadou Tidiane Tall yàlla yàlla xarakaal janna yàlla yàlla ko ay leer yu bëree bëri bëri njabootam yàlla yàlla teg si loxoom yàlla yàlla barkeel ga wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fekk maa nekk caporal mu am chef de poste bi mu ñëw rek ne chef de poste bi hey demal nga wax Cheikh Amadou Tidiane Tall ni ñëw fii fekk ma fi yow dama koo soxal sergent bi tourné daal ni waay mais paa bi xanaa dafa dof bi may génn ci douche bi rek ma ñëw gis ko ne ko bay tok ni li ak dal ne cheikh bay baaba daaj mi ngi fedde dafa ñëw rek ne chef de poste bi dama lax cheikh Amadou Tidiane tal mu ñëw fi cheikh reba wadi ci ñu wacc ñun ñaar ànd ba poste police mu jël bay baaba dag yobbu ko ba kër ga waxtaan ak mom ba pare doog a ni pour bobu humilité ci kilifa gu toll non ku ko am cela veut dire que fonkoon nga say bokk cheikh on le met maa koy rappelé encore baaba di s'appelait cheikh Amadou Tidiane cheikh Amadou Tidiane tal wa

ànd moom mooy xew-xew bi géejawaay la xewee euh, colonel bi nee na mi ngi njëkk gërëm jeunesse bi nga xamante ne mooy xale yi waa ngii ji parce que reconnaissance weesuwul léegi la wax ne euh, xale yi organisé lii bi ñuy juddu boobu fekk na taal génn àdduna ñu nettali leen kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane seen mag doy leen ñu topp li seen mag ñu wax waaye dañ leen bëgg a xamal ne commandant Cheikh Ahmed Tidiane Tall jógewu fi mi ngi ci mbooloo mi toog pompier la bokk kenn mënu koo génnee pompier te man li ma wax lu ma leer na lu ma xam la parce que koo xam 1986 ma fekk ko pompier mu nekk liet na ba tey mu def 32 ans kooku sañ naa wax ci moom parce que dama dund ak moom te bu ma fàttewul balaa ma jeexal naa ne wax loo xamante ni tax na bu ma ko fàtte du ma gor pompier yëpp ne ne ñu ngi sant yàlla di julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu di sant commandant Tall réccu ñu ko doon xamee le pourquoi ñu ne tey fii groupement bi brigade bi toll xam-xamam la fii groupement bi toll mébétam la woon parce que archive yaa ngi fi bind na bàyyi fi wax na bàyyi fi te état continuité la kon nag pompier yëpp ne ne ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla njaboot gi fi bàyyi ak ndey faatu yal na yàlla teg ci loxoom njaboot gi fi bàyyi ak ndey faatu yal na yàlla barkeel leen mun naa ci lu bari li ma doon ndey faatu xam na ma xam naa ko ñoo ànd mission Koweït man ak moom commandant Tall woo ma ci biir bureau ma toog mu ne ma Salif ma ne ma kii sama soxla ndey faatu ñu di ma dégg mu ne ma sama rakk nga wóolu naa la bépp soxla bu muy dox biir Koweït na nga ànd ak moom billahi wallahi taalaay barki bay laay seen Issa day fàttali may dégg commandant Tall mu wax loolu man sama kër am na montre boo xamante na depuis 2000 le pourquoi ma ko fa mu nekk commandant Tall moo ko génne ci néegu Ndeye Fatou may ma ko barki alxuraan dinaa ko fekki jaralu ma fet Ndeye Fatou du fàttaloo ci néegam la amoon montre boo xamante ne kaaba la moo ma ko may billahi yàqu na mais sama kóllëre ak Tall moo tax ba ma bàyyi ko fu ba léegi muy sama penku fa lay jublu pompier yëpp nag ñu ngi sant commandant di sant njabootam pompier yëpp ci baatu colonel Coulibaly nee na bépp famille képp ku bokk ci lu tax ci ngiiñ wala nga tax ci taal nee na boo amee soxla te ñu pompier wax ko nee na baalu la ko parce que pompier boo dem boo ñëwee nga ni njabootu Cheikh Ahmed Tidiane Tall laa soxla laa laa bokk damaa soxla nangam koo jot

kon nag ñu ngi sant yalla di julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam nak nag mention spéciale mention spéciale Ndeye Fatou Koundoul ñun ay xalé lañu won nek pompier nekk ay tuut tànk am 20 ans Ndeye Fatou jëkkëram nekk kilifa di lieutenant 1986 moo lieutenant euh, moo collègue moins xam na li may wax 86 daal était lieutenant fekk ko pompier kilifa la won bu wacce ci auto yor ay bagages le jeune atia ah mu gàddu bagage yi mais Ndeye Fatou boo leen laajtee est-ce que mu ngi tegal tegal tegal ñëw ne ko mu ne tegal tegal tegal ci biir kër gi du la bàyyi nga dem te dugalul loxoom ci biir saak bi génnee dara jox la ñun doo nañ nekk poste police état deuxième classe Ndeye Fatou day temporaire këram wàcceel ñu ko poste police di nit di xool pour bay gis commandant bi ba indi ñu ko à l'époque il était su ko defuloon man santuma kundul dëkkuma ngi man Fall laa sant su ko defuloon du ma ko wax day faatu xëylu ma borom yet mais dafa baax yal na ko yàlla barkeel yal na ko yàlla yokk li ci suñu xol lépp mënuñu koo wax asalaamaaleykum wa rahmatulah mais nag balaa maa dem dama lay wax leen door day wax dëgg damaa ne garage mënu ma bind sama tur mënu ma bind sama sant Bernac laa dina ñëw armée commandant Tall moom Adama Samb Adama Samb yor moto moom yor 205 ma di ko fompal guddeeg bëccëg mu xëy ma taalal ma ne ko moo mënu maa taal de albu dina ci lieutenant mun ma nga demal mënu ma taalal

suñu paree ñu dajee altine première altine du mois ñu jàng ka xatbu bi moo koy jàng ñu ñaaneel yàlla jàmm ñaanal yàlla pompier li ma leen di wax nag mooy bi ma ñëwee di ko remercier ci teraanga bu ma defal dafa pare mu ma saarif toogal ma toog mu ma jàngal xoo ma ne ko jàng naa waaye soriwul mu ne ah ma ne ko am mu ne ma yàlla moo ne yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma zindillah yow ma bis laa tamliku dina ñëw nafsun bakkan du ma ne mënoo bakkan dara ci kanamu yàlla kooku wax na dëgg fii dafa amoon bakkan mënal ma nee na fële ca buñ dajee ca yàlla bakkan du fa mënal mënoo bakkan dara lu wér la keroog laa xam nañ ne lépp lu bakkan mën fii rek defal ko nit ki loo mën na ko defal nit ki parce que ëllëg yàlla ne di ngeen wéet ak man ma yàgg ak yow ba nga defee yow dong laa bindoon kon nag kuntum xayra umma uxrijat naasi fii du firiwukaay alxuraan parce que ay borom xam-xam a fi toog kenn du toog ci biir waa ngi di feer alxuraan wóorul asalaamaaleykum wa rahmatulah. wax naa ko dinaa ko waxati ah, jërëjëf ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm rek di wax waa njiit yëpp ne tey am nañu référence ci Cheikh Amadou Tidiane Ka waaye am na loo xam ne war nañ ko bàyyee jeunesse bi mooy tey am nañu ku mel ni capitaine Amadou Koundoul. mi ngi ci musique principale des forces armées am nañu ku mel ni capitaine Mbaye Baratou Koungheul ku mel ni santé euh, militaire am nañu ku mel ni lieutenant Ousmane Koungheul mi ngi douane sénégalaise am nañu ku mel ni lieutenant Koundé Gramar mi ngi nii toog.